asalaamaaleykum beaucoup Sénégal maa ngi Ndiaye Japon responsable politique de la coalition 2019. donc euh, dafa am lo dafa am ci élection présidentielle yi ñu joggé. te ñu mu ci parce que man di man man le président Idrissa Seck fi Japon donc nous avons ni bi élection yi à en 20 heures au Sénégal nous avons waa TFM publier un résultats comme quoi Japon président Macky Sall a gagné avec 77 Et le Japon a voté wu fi dëkk bu voté mais nan le président Macky Sall a gagné Japon amul vote amul élection a voté wu fi L'État tax voté il ci a le nombre de personnes requises pour pouvoir euh, avoir un centre ou un bureau de vote loolu moo tax Japon ken vote wu fi donc maa ngi ñaan képp ku jot ci vidéo bi nga partagé ko pour mu law ñëpp jot ci parce que sàcc gi ñuy waajal mom la ñu bëgg ñu dakal ko di créer ay résultats fictifs di ko yokk ci seen ay pourcentage pour bëgg passer au premier tour ça ne passera pas vidéo bi ku ci jot nang ko partagé ba ñëpp jot ci Japon la nek maa ngi nii ay japonais rek la togal qui kenn voté wu fi kon bu ñu créer ay bureau fictif wala ñu créer ay chiffres bëgg ko moomale Macky Sall ni moom moo gagné Japon alors que Japon kenn voté wu fi jërë jëf merci beaucoup ensemble nous vaincrons le combat continue et la victoire est au bout du tunnel Mindef Ndiaye responsable politique du Japon jaa ngeen jëf